vraiment mu ngi ñëw seet si ñu fii Gambia kontaan nañ si torop torop torop ñu koy ne welcome ñu ngi koy welcome bu baax a baax. gouvernement bu es bi am Sénégal ñëpp kontaan ci ñëpp am ci yaakaar ci ñaan it yaakaar biñ ci am yàlla bu mu tas en bi diis na waaye yal na ko yàlla oyofal. c'est pas la bu nekk nekk président ñëw na fi à part Senghor Senghor de moom fekk ma fi waaye Abdou Diouf ñëw na fi Abdoulaye Wade ñëw na fekk ma fi. Macky Sall bi mu nekkee fii la njëkk a ñëw fii la ñu fekk Abdoulaye Wade kooku noonu président dem nañ seeti ko Bassirou bu jee ñu daloo koog jàmm daloo koog jàmm rek yàlla yàlla yàlla may ko jàmm Sénégal am jàmm. man kay Diomaye ak Sonko bég si ñoom kontaan si ñoom bu baax a baax si ñoom kontaan naa si ñoom te ñaanal yàlla yokkal leen place bi mu jëm ca kanam ak kanam. liñ liñ ci nañ ko ci am yan nañ ko ci gis ñun tamit. li yaakar ci si ñoom yàlla bu yaakaar tas yal na leen yàlla jàppale gën leena a ñu avancer ci kanam ak kanam li ñu bugg si ñoom daal ñu gis ko tax waaw bu ñu xam ni seen doom yi xam nga manam bo xamee ne sa doom génn moom di nga ko bayyi xel rek tolluwaay wayi la di maam bo xamee ne sa doom na mu ngi ci all bi di nga ko jàppale ci limuy muy liggéey ndax Sénégal yi wax dëgg fa yalla ku ci yoru dërëm ta yaangi wut liggéey ay jambar la fo dem da nga leen di fekk ñuy liggéey fo demit si ñu nuy naw la ni bokk voilà liggéey moom fooy wuñ ko wax gën a xam ne xajaloo amut si ñu gën a góorgóorlu lépp loo xam ne ñagasoon na ñu jéem a lu ñagas amul fa sax waaye ñu jéem a gën a rataxal rek diggante bi nga xam ne lépp dina yomb lépp dina yomb. si wàllu coopération yi lan ci gën a xaar rek mooy ñu gën a jàppalante rek gën a jàppalante gën a doon benn xamna digante bi lu ñaaw xeju fi lu rafet rek am xet amuñ dara lu ñaan rek yalla yalla gëna gën a boole xol yi ci barké yonent bi ñu bàyyi lépp ci loxo yalla suñu est ce borom. yalla bu yaakar tax yalla la yalla jappalé gën leen jappalé ñu avancé ci kanam ak kanam li ñu bëgg ci ñom daal ñu gis ko ci ñu contane kontaan si ñoom bég si ñoom. rataxal digante Sénégal ak Gambia. di quantestionnaire ndax Sénégal bi ñu nekkee ci seen euh, kii élection bi Gambien yi kontaan nañ si lool waaw kon nag bi su Sonko demee ba win euh, ki naka jamaay moom ak jamaay ñun tam kontaan nañ ci torop